conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf politique koom-koom société wala sax tàggat yaram yéene kaay tey ku ci nekk ak fi nga fël réew mi quotidien moom di kat ci relogement yi nga xamante ne war nañ koo defal njaboot militaire ya yu ñu jëlee ca terme sud ca diwaanub Wakam ci xët bu njëkk yéene kaay bi jëwriñ ji ñu dénk wàllub l'armée bi di maître Sidiki Kaba mu mel ni kuy dëggal juróom-ñetti téeméeri million yu ñu xamal ni njiitu réew mi Macky Sall moo ko jébbal ñooñee ñu jëlee ca diwaanub terme sud waaye ci biir yéene kaay bi Barthélémy Diaz mairub Mermoz Sacré-Cœur mi nga xamante ne moo leen taxaw yóbbu leen centre socio culturel Maryam mu ngay weddi bile xibaar ca jamono jooje famille ñi nga xamante ne dañ leen jëlee foofe ca terme ñuy sàkku ci kilifa rawatina ñi ngànk wàllub yoon ñu daldi ci amal ab audit maanaam càmbar ko vox populi càmbar ba gis ni jox na lu toll ci fukk juróomi hectare yu terme sud bu Sénégal yéenekaay di xam ne kon armée bi moo aaki moo lépp komiko moom dafa mel ni dañ ko ci beddi waaye tamit njaboot yu ñu jëlee foofe ca terme dafa soobu ci ab xeex bu métti gannaaw daan gi mu yëkkati teg ko ci ndodu ab kilifa diine moom atekat bi di Ngor jopp gis ni lu nu ko teg du yoon moo tax ki jiite woon tribunal bu Podor daal di déposé ab recours ngir excès de pouvoir ni ki démb bu ñu sukkandeko ci avocat am di maître Ousmane Sey ak ñoñom ni kon juge Diop dafa jot ay appel yi nga xamante ne mu ngi tukkee ci procureur ak procureur général bu Saint-Louis di ko xamal ni kon joriñ ju ñu dénk wàllub yoon dafa jël dogal ngir affecté ko gannaaw daan googee nga xamante ne def na ko ci kilifa diine gi moo tax ci yéene kaay les convocation boobee ñu jàppee ni dëppoowul ak yoon tax na ba juge Ngor Diop di attaqué dogal boobe nga xamante ne moo ngi tukkee ci jëwriñ ji ko njabootee juge Diop nag du yem ci xeex bi source a duñu xamal ni union de magistrats du Sénégal ñoom tamit soobu nañu ci mbir mi ba ñu yóbbu recours en annulation bi nga xamante ne demb lañ ko jébal cour suprême ngir ŋàññi affectation bi nga xamante ne def nañ ko magistrat bi di Ngor Diop li leader politique yi di def ni discours ak xasante tax na ba Dakar di samp ba xam kilifay politique ci réewum Sénégal ànd nañu ak seeni sàggu li waral suñu naataango yi di samp bi leen laaj moo di lu ñu gis ci coowal Ousmane Sonko ak Mansour Faye ak yeneen sax li ko jiitu ñu jàpp ni am na li ñor askan wi lu mooy ay audience yu ñuy sàkku wala sax ay audio yu ñuy fësal li am ba am 24 heures dafa jàpp ni Ousmane Sonko mu ngay wéy di gën di fës yónnikaay bi xam ne ni donte dañuy wéy di ko jam ay baaraamu tuuma ci ay mbir waaye teewul ba tey nguur gi mën mënagu ko suuxal 24 heures di xam ne kon ni Ousmane Sonko li waral mi gën di fës ci géewu politique gi bokk na ci nga xamante ne dafa jàpp ni nguur gi da koy def PDS ak PASTEF lu ñu namu def ci élection locale yu ñu dëgmal boo moyul dina indil gàllankoor Benno Bokk Yaakaar Sud Quotidien moo ni jàngatee ndax yéenekaay bi dafa xam ne ni parti Ousmane Sonko bi ak parti njiitu réew ma woon maître Abdoulaye Wade ñu ngi ci ay waxtaan ngir xool nu ñuy def ba lëkkaloo ngir mën a soobu ci élection locale yi Abdoulaye Daouda Diallo moo soobu ci ab mbir bi nga xamante ne boo moyul ay gàllankoor kese la koy indi lii quotidien di xam ne ni yokkute gi ñu nemmeeku ci wàllu budget bi xamante ne jëwriñ ji ñu dénk wàllub koom soobu na ca le témoin yéene kaay ñun ci li ñu war a amal allocution spéciale jagleel ko ñi nga xamante ne jàngalekat yu nekk ci daara yu kawe yi yéene bi di xam ne ni kon mbébétu njiitu réew mi ci mbir mi mooy fexe ba taxawu jàngalekat yooyee te sowe leen ci situation bi nga xamante moom la ñu nekkee ñi ñu mënagul sowe mooy ñi yëngatu ci wàllub napp gi waa grand place xam ne ni kon seen wàllub karange social ci boppam moom la état bi faratalul yéene kaay bi di xam ne ni kon donte def nañ ci ay jéego waaye teewul ba ay jafe-jafe yu tar la ñu nekkee dix mille problème li mu nekkee nëbbu ko benn yoon rappeur bi nga xamante ne dañ ko teg loxo gannaaw ba ñu fekkee ci moom dorog bu bëri xamle na ni 2001 ba léegi bis bu yàlla sàkk mu ngi xëy muqi ana ki war a muqi moromam diggante gaynde yu Sénégal ak gaynde yu Maroc yi tey jii la ñaari équipe yi di daje ci ab jongante xaritoo foofe ca diwaanub Rabat stade yéene kay di ñu xam ne ni boobu la jongante ci huis clos lay amee waaye Edouard Mendy di cobok ndax gaañu-gaañu gi mu am moo tax suñu naataanga yi di xam ne ni ki ñu woolu bu bees di bingiru